internet Sunugal 24 dañ leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp gi tànneef gi ak lu te gi ci biir Sunugal 24 rawatina émission bi di xalima bu ñaw ñu ciy wër ay ndaanaan di leen dalal waxtaan ak ñoom tey ñu dalalal Serigne Bassirou Niass dañ koy bàyyee kàddu gi mu nuyoon te ñu ñuy seetaan sëriñ Bassirou maa lay nuyu di la ziar. Ah, bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin salawaatullahi wasalaamu alayhi wa alayhim wa ala taabiin wa taabiin bi ihsaan ila yawmi ddin subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yaa himmata cheikh ahdur lana bi hada almahdari wal taataf li bi nadaratin taati lana bi zafari mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh maa ngi nuyu mbokk yëpp di la fay nuyoo jajëf Serigne Bassirou di am mbégte bu baax a baax di ànd ak yow ci li nga xam ne moom moo di xalima bu ñëw ci biir suñu gaal 24 dañ koy dooree ci li nga xam ne moom moo di euh, seen liggéey Serigne si ñu ñu baree léegi ku jóg rek ne Serigne nga te ñu ci bari bari mën nañoo jàpp ne ay naxaatekat lañu lan moo ci sa gis-gis. waaw alhamdulilah euh, li nga wax moom nit ku ne rek teg na ci bëtam muy Serigne su bari nga xam ne fu mu toll internet bi Serigne yi ñoo ko. ñoo ko ñoo ko fees yi dell wax dëgg yàlla ku nekk di di oote yow sëriñ nga euh, ñii sëriñ lañ ñii duñ sëriñ ñii xam nañ xam-xam ñii amuñ xam-xam mën nañ ñii mënuñ wax dëgg yàlla loolu moom ku nekk rek gis nga ko ku nekk it xam nga ko euh, nit ku ne nag euh, sa liggéey ak la ngay def loolu dañ cee war a jiital sa diggante ak yàlla mi nga xam ne ni moo la bind te da nga fi ne ab diir diir ba nga fi ne xamu ñaata waxtu lay doon kon ku ci nekk rek war dëgg yàlla war ngaa mën a rafetal sa gis-gis sa yéene ci jaamu yàlla yi nga xam ne nii ay jaamu yàlla lañ ci yaakaar la waaye tamit war ngaa rafetal sa jëfin yow bi nga xam ne ni yow yaay jif li nga xam ne daal mooy li am solo mooy nit war naa dëggu ci waxam war naa dëggu ci jëfam dëggu ci sa wax soo ko defee lépp loo wax lu ne rek dëgg la parce que da ciy seet yàlla dëggu ci sa jëfit lépp loo xam ne nii soo ko jëfee rek dëgg lay doon parce que da ciy seet yàlla euh, nit ñi nga xam ni ñooy. am yaakaar ci sëriñ si ñoom it war nañ rafetal seen njortu ci sëriñ si nit ki mënu koo gis rek muy génn internet wala mu génn télé nga ne naxaatikat la parce que ñoom ñëpp ay sëriñu naxaatikat lañ ay sëriñu euh, dégg nga ay sëriñu internet yi ay naxaatikat lañ te wax dëgg yàlla. nit ki bala ngaa koo gisee war ngaa mën a jëflanteeg moom ba xam ki nga xam ne nii moom ngay jëflanteeg moom mooy kan ndax daf laa mos a nax ndax dafa mos a nax koo xam ne nii daf la da nga koo xam mu óor la nga xam ne nii ki la wax yow óolu nga ko óor na leen ne kii nii nax na ma wala nax na koo xam ne nii mos naa jëflante mos naa jëflante ak moom kooku wax ma ko te leer nañ ni kooku wax dëgg yàlla war na koo mën a gisee mais koo xam ne xamuloo ko. gis ko rek ne cam ñii de wax dëgg yàlla kenn jubbu ci ñoom ñëpp yem loolu su dee la ngay wax dëgg la amoo ci dara loo ciy gañe su dee lu dëgg am nga ci bàkkaar parce que yàlla def ne ci alxuraan inna ba'da zanni ismun soo njortalee nit loo xam ne ni lu baax la su li nga njort su dee am na la nga njortu noonu noonu yàlla def la ci may tiyaaba parce que la nga njortu nga njortu bu rafet ba pare langa nga njortu am na su dee nag da ngaa njortu loo xam ne nii amul la nga njortu noonu noonu da ngay am te ci am bàkkaar parce que njortal nga jàmm loo xam ne nii amul li gën a am solo nag ci ci doomu aadama mooy nga fexe ba nga xam ne nii da ngay li gën a am sens ci nit ki mooy ngay gaaw di gëm mooy ngay ga moo gën ngay gaaw di wétti parce que soo gaawee di gëm ki nga gëm su dee la muy wax ak la muy jëf dëggu na yow man nga danga sa sa dégg nga man ngaa am li nga bëgg dégg nga te doo ci am benn bàkkaar te it moo ëpp sens su dee nag da ngay gaaw di weddi nit ki dana la romb ka ka man ka xam ka waroon a faj sa soxla dana la romb romb la ba wéy nga doog a xam ne ah man kan ndeke diw mii nii ndeke moo waroon a faj sama soxla nañ daal rafetal ñun ñëpp. suñ yéene suñu njortu ci jaamu yàlla yi ndax yàlla dafa dafa wax ci xaddisul xursi yi xaddisul xursi yi mooy loo xam ne ni du alxuraan ana fii dhanni abdi maa ngi ci sama njortal jaam jëflante nit ki di am ci moom njort bu ñaaw ba pare ne da nga jëflante ak moom wax dëgg yàlla kooku mënoo cee am loola neex waaye nag sooy jëflante nit ki ba pare jiital njort bu rafet yàlla su dee waaji ji mën na sa njortu waaji ji mën na dana la defal da nga gis su dee mënut yàlla mi nga xam ne moo tax nga jortu ci moom lu baax yàlla moom noonu mën naa tax mën naa faj sa soxla te fekk sax waa ji faju ko yàlla rek moo ko faj ci mbaaxam. ak kiyam alhamdulilah. jërëjëf mm. ñu wax ci leneen loo xam ne itam euh, bëgg nañu ñu nga andi ñu ci ay leeral ci euh, li nga xam ne moom nga ci mën ànd ak góor wala nga ànd ak jigéen boo xam ne mën nañoo jàpp ne utiliser na la maanaam mu jëflante ak yow wala mu gëmloo ne dina la takk wala nga takk nga dem ba ci biir gis ne que moom daal xelam mu ci leneen loolu est-ce que mën nga cee jëflante ak ku góor ki wala ku jigéen ki ba ki nga xam ne moom la doon nekkal des ci ay loxoom. waaw man de dama damay xeex injustice. damay xeex àq nit ki nga xam ne dafa la gannaaw yàlla muy góor muy jigéen ngeen ànd ngir yàlla ne da ngeen di sëy wala da ngeen di ànd ba sëy fekk leen ci seen ànd muy góor gi muy jigéen gi ngeen dem ba cim kanam mu bëgg laa indil or. ak or inna allah la yahdi kayal xaayinin yàlla du ànd ak way war ñi kooku suñ ko xamee muy góor gi muy jigéen ñi dana ci def loo xam ne du la mën a war mukk gannaaw ànd nag yow ba mu neex ko mooy dala fay bàyyi dem ànd ak keneen te defoo ko lu ko jar waxoo ko lu ko jar wax dëgg yàlla loolu man lu ma jaral danaa ko def pour loolu mu bëgg noonu du am yow li nga bëgg mu am incha allah ndax ñu ndax loolu wor la te man bëgguma li nga xam ne nii mooy li wor te destan bëggul li wor. su boobaa noo mën a jëflante ki war ki war a wor. ki nga xam ne nii mooy war ki nga xam ne moo bëgg pour wor danañ ko def loo xam ne du ko du mën a wor mukk ki nga xam ne nii moom la bëgg wor loolu ki nga xam ne nii moo bañit ñu yor ko danañ jëf loo xam ne nii li bëgg noonu pour waa ji bañ koo war incha allah taala su neexee yàlla loolu du am mukk waa ji du ko war mukk incha allah. jërëjëf ñu gis ngay liggéey jaaro jaaro bi nag ñu bari xam nañ ko ci yow. mais dañu bëgg rek nga leeralaat jaaro bi kan moo ko yeyoo ak lan lay def ci nit ki. waaw jaaro bi moom dara du ko yàq lu dugg armeel soo duggee armeel rek jaaro bi yàqu na. Mm-hmm. maanaam sànnil jaaro bi dootu la jëriñ dara waaye fekk jaaro bi duggul li nga xam ne nii mooy armeel jaaro bi baax na dara mënu ko yàq du sëy. du def lu la neex mën nga koo def dégg te jaaro bi du yàq. Mm-hmm. jaaro bi nag soo ko amee ki nga xam ne ni am na ñoo xam ne mënuñu sangu mënuñu takk kooku mën nañoo am jaaro bi parce que muslaay la en même temps daf lay ubbi. te it daf lay nekk loo xam ne bayra lay doon pour yow te it soo ko amee sa yëf dana yomb li nga bëgg yootu it incha allahu yàlla dana la ko jotalal euh, lépp loo xam ne nii luy yokk doomu aadama la lu koy jëriñ def nañ ko ci biir jaaro bi lépp lu koy musalit alhamdulilah rabbil alamin def nañ ko ci biir jaaro bi jaaru nag jëmmi jaaru kese kese kese mënta jëriñ kenn parce que jaaru xaalis lay doon dégg nga am par xaqiqa waaye nag lañ koy liggéey def ko ci biir ak siru bi na ci biir ak baatin bi na ci biir loolu mooy la nga xam ne moo koy jëriñ alhamdulilah te loolu baatin bi ak siru bi loolu moom la ñuy def ci biir jaaru bi ba nga xam ne ni soo ko takkee rek ku la gis danañ la bëgg danañ la sopp sa wërsëg dana ubbeeku te da nga da nga mucc incha allah taala. est-ce que Serigne Bassirou day faj rab. walhamdulilah rab yàlla may na ci mhm. kun ku ñu xam-xam suñu maam dana xam ne nii yàlla mayoon na ko ci mbiram faju rab alhamdulilah euh, képp koo xam ne rab jàpp na ko ak num man man di la def su neexee yàlla incha allah suñ gisee man ak yow wala ñu déggante suñ soo utiliser li nga xam ne nii mooy suñu garab su neexee yàlla ci fan yu gàtt rab yi dana la bàyyi incha te du dootu ñëwaat parce que rab mën nga ko dàq mu ñëwaat. waaye ñun suñu la joxee liñ lay jox rab bi daf lay séexalu comme ni ngay séexloo li nga xam ne ni mooy lu bon alhamdulilah. rab bi euh, ndaka nga koy génnee ci kooku da nga koy dëppal wala ndaka lay demee il suffit juste que nga jox ko ay garab yu mu naan wala lu mu sangoo rek wala lu muy takk rab bi mën a dem. alquranul karim lañ am ñun moom la ñu utiliser moom lañ xam secret bi na ci biir. te man lu nekk ak siru bi ne ci biir ak ñun tur yàlla yi ñuy liggéey pour def loolu mm-hmm. alhamdulilah ci alquran ak tur yàlla ak sekkir yi nga xam ne yàlla may nañu ko loolu moom lañ koy dindee suma kër képp koo xam ne ni ñëw nga fa gis nañ ñi ñu leen jàppoo de indi foofu te alhamdulilah du ma tagg sama bopp waaye biram rab yaakaar naa ne ñi ma ci man su dee am na ñu ma ci man ñi ma ci man bëriwul man naa ko alhamdulilah rabbil alamin mbiram bayre tamit dañuy wax que yaa ci gën gaaw parce que yor nga ay bayre joni joni yoo xam ne ngay jëflante ak nit ki ci saa si mu gis euh, bayre boobu kan moo ko yayoo kan moo war a uti bayre waaw bayre euh, nit ku ne war naa mën a am bayre góor ak jigéen mag ak ndaw ndax bayre soo ko amul suñu la gisee ne cam suñ déggee sa tur ne cam soo nekkee ci mbooloo sax nit ñëw gis la fa ne ah cam moom moo yàq mi wala su nit ñi newee ci mbooloo mi sax nga ñëw ñu ne ah cam kii di waru ci bokk ci mbooloo mi yàq na mbooloo mi ndax bayre soo ko amul dafa mel ni tëkkiwoo dara ci askan wi mm. euh, ku ne rek wax dëgg yàlla war ngaa fexe ba nga xam ne li ngay ñaan yàlla ak li ngay sabablu bayre ci bokk mm-hmm. ndax bayre soo ko amul doo mën a sax def loo xam ne ni sax lu am solo la parce que nit ñi duñ la bëgg nit ñi duñ la jox bopp nit ñi duñ la sopp te ku nit ñi sopp duñ la déglu ku nit ñi sopp duñ la jox ku nit ñi sopp say bunt ubbeeku parce que yàlla li muy joxe daf koy jaarale ci nit ñi muy ñëw ci yow yàlla li muy wërsëgal nit ñi ci nit ñi bëgg la daf koy wërsëg daf koy jox nit ñi nit ñi sopp lu bëgg la pour mën la yéene seen alal pour nga jox ko yàlla du moom ci boppam mooy wàcc du jox nit ñi ay alal ak ay ci bay rek nangam nangam waaye dafay def ci xolu nit ñi loo xam ne nii dañ lay bëgg dañu lay sopp dañ lay jublu te suñ la soppee jublu la bëgg la mu neex leen ñu jëriñ la mu naqari la ñu jëriñ la ku la gis rek bëgg la bay rek ba ñuy def alhamdulilah soo ko utiliser su neexee yàlla incha allah da nga am résultat te li nga xam ne nii moom ngay euh, ci lépp luy yëngatu rek ñun suñ bay rek soo ko utiliser da ngay gis ne la nga yëngatu noonu noon yàlla daf ciy bay def dégg nga li nga xam ne nii mooy barke. te man lépp loo xam dama koy def dama koy assumer dama jël samay responsabilité di ko di ko def ba mu mat sëkk képp koo xam ne nii nga ma téléphone ma wax la lii mat naa ko loolu ba ilaa yawmi diin incha allahu taala dama jël sama responsabilité lépp lu mu laaj danaa ko def te it man képp koo xam ne nii yaa ngi jëfandikoo man soo ma ooyee man ngay jot. doo jot sama bëkk néeg doo jot kenn parce que mën ngay jëflanteeg jëflanteeg samay bëkk néeg te it mën ngay waxanteeg waxantewu kenn incha allahu taala. am bayre te amoo muslaay mbaa cat du la topp ak cat lu mu mën a def ci nit yëpp. waaw alhamdulilah ñun suñ bayre dañ ko joxe noonu rek dañ ciy jiital muslaay hmm. même soo doy da nga wax bayre rek man su ma lay jox bayre bi dama ci jiital muslaay eh, nga def muslaay wi après nga doog a def bayre bi parce que it wax dëgg yàlla eh, cat baaxul. bayre bi muslaay bi mooy jiitu bayre bi. waaw bi su dee moom nga bëgg man dama lay mayaale muslaay dama lay joxaale muslaay nga utiliser ko ba pare ba nga xam ne nii défense nga ba pare soo défensé sa bopp ba pare nag bayre bi doogu ñëw na nga xam ne dootu dara dootu la lor. incha allah alhamdulilah waaw allah allahu taala. <laughs> cat nag. cat lan la mën a def ci nit. cat de euh, bëri na tey ñu dee cat leen rey gë yàlla mooy rey. Mhm. waaye yàlla danay seetaan nag su ko neexee. Mhm, daa maandu. danay seetaan. Mhm. ndax ki nga xam ne moo lay cat wala moo lay def lu bon. kooku duut moo man waaye dafa def dara yàlla seetaan ko pour ëllëg yàlla mbugal ko. Mm-hmm. waaye yow balaa ëllëg yàlla di ko mbugal fekk yow mbugal na la yow moom waa ji moom mbugal na la fii ba pare. Mm-hmm. parce que catu na la dégg ba nga xam ne nii yàq na sa liggéey te cat lu mat a muslu la ci nit. Mm-hmm. rawatina ki nga xam ne nii mooy gone. ak ku ne ci yoon. képp koo xam ne nii yaa ngi ci yoon war nga muslu ci cat. war nga da déng lépp loo mën nga di ko def ci sa bopp pour que cat nit ñi du ku nekk yaa am fitu dem liggéey nit parce que am na ñoo xam ne ku leen liggéey man am naa loo xam ne su ma la ko joxee mm-hmm. ku leen liggéey du ko nettali. Mhm. ku la liggéey ku la taxaw di liggéey balaa bës set mu dee. ki am cat moom nan la ñu mën a xamee ne cat mi ngi ci moom parce tey am na yenn kii yoo xam ne bu dalee nit boo ko xoolee di nga xam ne kii lii moo ko dal lu ci mel ni cat góom lay doon ci nit ki wala tab wala lu muy mënti doon loo xam ne mooy màndargaal cat bi ci biir nit ki. alhamdulilah cat dafay topp nit képp koo xam ne nii cat ak rab li ñuy def ci nit ñoo bokk. Mhm. Euh, lépp loo yaakaar loolu dafay tas. dégg nga lépp lu la nit nit dig te da te am na ñoo xam ne dañu lay dikk mu ordinaire kii nii li mu may li may wax nii dëgg la ci moom mais bis ba su jotee rek yàlla day def xolam dootu ne ci. yéene la ko mm-hmm. loolu cat da koy def. dégg nga cat dafay tax dégg nga say mbir di gën a dellu kanaaw cat dafay indi sax feebar. cat bépp gàllankoor boo xam ne nii rab dana ko def rek. cat la koy def lépp bépp gàllankoor boo xam ne cat dana ko def rab dana ko def ñoom ñaar ñooñu noonu daanaka soreewuñ mm-hmm. bële rab lay doon mm-hmm. boo xam ne nii mooy def lu ko mm-hmm. neex bii cat la nit ñi ñoo koy def di la sonal ñu jeexale ci benn point boo xam ne euh, yaakaar naa ne jigéen ñi lay soxal nga nga nekk ci say yàgg fa te amagoo doom wala nga am doom dem ba ci yàgg sa say taxaw nga bëggaat doom mais jafe na ci yow lan moo waral lool ak kook nga xam ne loolu dal na ko bu ñëwee ci yow ndaka nga ko mën a jàppalee. waaw alhamdulilah ki nga xam ne dafa dafa musta am doom yàlla musu ko may doom ak aj boo ma di am te musoo am doom te yaa ngi sëy sa régal mi ngi ñëw normal su dee sa régal ñëwul normal it am na lu ñu lay am na lu ñu lay fajee. Mm-hmm. su dee sa regal mi ngi ñëw normal te yàlla mosulaa may doom it euh, am na loo xam ne suñ la ko joxee da koy takk sa ndigg cawril lay doom loo xam ne dañ koy liggéey ba pare ñu joxal ko si takk ko sa ndigg defal naa ko ay nit yoo xam ne nii danañ ma seetaan. Mm-hmm. te it euh, alhamdulilah am na lu dox suñu diggante man ak ñoom te yàlla rekk a tax may wax man lépp lu may wax rek yàlla tax may parce que ñooñu tuddee nañ ma ay doom. te it gannaaw yàlla yàlla may na leen liñ am waaye ci man la ko jaare du man maa ko maye mais yàlla moo ko def jaarle ko ci man li nga am yow tey kooku duut nit moo la koy jox mais yàlla moo la koy jox di ko jaarale ci nit man dama wax ne képp ko xam ne nii amuloo doom mosoo am doom man soo ma xamee incha allahu taala dégg nga doo dee mukk te amuloo li nga xam ne mooy doom képp ko xam da ngaa taxaw it da taxaw mais am na ne yàlla bind na leen te waruñoo am doom. Euh, ki yàlla bind te waruloo am doom mooy koo xam ne nii yàlla dafa def dégg nga euh, xamuloo fa war a jaar pour am doom. dégg nga parce que su dee xamuloo fa nga war a jaar ba am doom kay ba amoo doom doo am doom. mais bu ko yàlla bindee ci nag ne yow mii bind naa la mais doo am doom. waaye yàlla xam nga euh, lépp lu bind ñan mën na koo dindi man li may wax dafa leer. alxuraan laay wax lépp lu mu rek lépp lu mu bind lépp lu mu nar a def ñaan ak lu yàlla ak def li nga xam loolu mën naa. kon ku repp yow mën nga koo ñaanal ba mu gudd fan. ku repp xam nga yàlla dafay xam nga nit ñi dañuy am lu ñuy faral di wax. Mhm. ay repp ak ay nangam ak nangam ku repp kenn du ko ñaanal. Mhm. ku repp kenn du ko ñaanal parce que du gëm ku koy ñaanal te du dem fuñ fuñ koy ñaanale mhm. ki nga xam ne nërta am doom kooku du dem ci koo xam ne daf koy ñaanal pour mu am doom. parce que naru ko. wala suy demee day dem ci koo xam ne su ko ñaanee du nangu parce que mënu ko. Mm-hmm. du dëgg waaw yëf yi yëf yi na dëggu rek mën dëggu dëgg rek laa xam. ñu ngi lay jaajëfal Serigne Bassirou Niass comme waxtu yi jeex na dañ lay euh, daal di tàggu rek lan nga ñuy tàggu. maa ngi sant yàlla bu baax di jullu si yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. di ñaan yàlla jàmm. ci Sénégal jàmm ci Afrique jàmm ci àddina bi yëpp. yàlla mii may jàmm lépp lu nit am te amoo jàmm. Mm-hmm. da nga jaay li nga am yëpp jëndee ko ci am nañu ko yàlla defal te yàlla may may ñu ñun ñëpp mucc ku mucc rek dama mosa laaj sama benn baay ju baax ne ko ah ndaw lan moo gën a baax ci moom mu ne mucc soo muccee rek ñàkkoo dara yàlla nañu yàlla may ñu mucc. Hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Serigne Bassirou Niass jërëjëf ami internet Sunugal 24 yéen ñu ñuy teewlu saa su nekk di ànd ak ñun ci suñuy programme Serigne Bassirou ñas lañ dalaloon tey ci biir xalima bu ñaw waxtaan wi euh, yaakaar naa ne ñoo ko déggandoo am na solo. képp ku bëgg a jëflante ak moom mën nga woote ci 77 483 42 35 77 483 42 35 incha allah boo wootee ci numéro boobu rek di nga mën a jëflante ak moom dañ leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp gi tànneef gi ak kóolu tige di leen jox dig daje beneen yoon incha allah ak yeneen i euh, ndaanaan ci biir xalima bu ñam